pour nous recevoir 450 tonnes de riz sur 10 889 tonnes que nous devons recevoir. Que nous devons nous recevoir. Euh, c'est ce que c'est. Ce c'est le sable, le pâte alimentaire. Sucre. Sucre. Vous avez vu que 450 tonnes sont venus. Vous savez, il y a une escorte. Les gendarmeries ont un nombre de camions qui sont escortés. Vous savez, c'est ce rythme qui est venu saa bu yembee rek nous parce que nous ngi def suñu parce que nous avons warul parce que ñëw jot rek nous avons suñu nous pour wax que mbir mi ñëpp ci bokk ñëpp la que nous ñëpp ñi nga Nous Covid 19 bi nous toutes les catégories socio professionnelles yëpp exclusion ñëpp au niveau des quartiers des comités da lañu bok comité bi dafa am lu ko composé da nga fay fekk ay imam ay délégué APDC euh, yi euh, association yi yeneen yëpp ci lañu bok bokk yooyu li ñuy yombal dañu il faut moo tax ma nit ñi il faut ñu xam lan mooy seen euh, mission ci lool li ñuy bëgg mooy yombal identification bi ni kii yeyoo na ko bu ñu d'accord ni kii yeyoo na ko ñu daal di koy jël daal di koy inscrire li ngay indi mën naa bañ a mate ñëpp mais par ordre de priorité xam nga amna ko xam ni moo a yeewoo sonni am keneen ku ci top am keneen ku ci top am keneen ku ci top non lañ koy doxalee ba mbir mi et puis transparence lay nekk. opération yu mel nii day am ay écart yu ndaw motax ñun tant que pare wuñu duñu bëgg communiquer ci ci chiffre. 1889 tonnes. sur ce plan amuñu problème. la gendarmerie est chargée de ça. ils sont au début et à la fin de tout le processus. ils nous accompagnent dans ça. c'est-à-dire que ñom ci njëlbeen bu oto bi di déparé port ñom ñoko en convoyé hier ñoo ko convoyé port ba dugal ko ci entrée Thiès fii. naa ñëw jël leen à l' entrée de Thiès pour les aiguillonner pour ñu ñëw fii. loolu la ñu def bi ñu xëyee aussi gis ngeen ci magasin bi ñoom ñu ngi toog donc dañuy liggéey vraiment étroitement ak le personnel du commissariat à la sécurité alimentaire te noonu lay continuer ba ba ñuy distribuer incha allah.